di jàkkaarloo ak yéen di waxtaan ak yéen ci làmb yaakaar naa ne tey nag ñu defal leen plateau plateau bu spécial dalal ci ñi nga xamante ni ah ay doomu nijaay ak ay doomu bàjjan lañu jamaïcain ak ki nga xamante ni moom mooy Beuz waaye dalal ci tamit ki nga xamante ni moom mooy Alaaji Fadam Tou ñu war a waxtaanee làmb làmb nag mooy làmb rek lépp làmb la waaye làmb la ah bëre làmb la tëgg làmb làmb la pay view sax mënul ñàkk ci làmb waaye danañ ko waxtaanee lépp lu nga xamante ni ñëw na suñu xel ñu waxtaanee ko leen nuyu nag fi nga xamante ni mooy zone de captage ah noonu la ñu koy waxee waaw zone de captage bu njëkk zone <laughs> ko wax loo jamee kii après bu nuyoo ba pare waaye nag comme Falaaj Bara mooy magum kër gi maa ngi lay nuyu bu baax a baax di la ziare bàyyi la nga nuyoog mbokk internet yi doomu nday bës xam naa ne moom heure bu la bës woowee rek. Ah. bës dong nga mën ci ah. waaw am na solo Lamine non daf ma jàngal métier bi te ku la jàngal métier rek bul la saa la wooyee da ngaa war a dem tarbiyu eh. ndax boo toogee borom xam-xam chaque jour da nga ciy gañe loo xam ne amoo ko woon. mais ñu ngi nuyu réew mi di wax station bi nga xam ne ni tey jii mooy Lutte TV. Hmm. ci amélioration bi nga xam ne tey jii gis naa ko fii. ndax wax dëgg yàlla toog naa ci plateau télévision yi gën a mag Sénégal. Hmm. mais c'est la première fois ma gis plateau bu mel nii. Hmm. c'est la première fois ma gis euh, ci côté digital lu màggee nii quoi. di leen féliciter bu baax a baax a baax a baax a baax a baax. di leen ñaanal jàmm di leen ñaanal réussite réussite nag mooy yàlla may leen ay programme yu bare bëree bëri bëri mm. yu ngeen ci mën a wane Sénégal yi seen liggéey mm. ndax bu dee mental bi mu ngi fii bu dee xarañte bi mu ngi fii bu dee bëgg bi tamit mu ngi fii mm. waaw loolu tamit ñu ngi leen ciy ñaanal saison bii ñu jëm suñu borom may leen ci ngeen liggéey ci liggéey bu am solo yaakaar naa ne daal wax dëgg yàlla gis naa plateau boo xam ne nii plateau bu extraordinaire boo xam di leen nuyu nag la muy sekk bu baax di nuyu Jamaïcain di nuyu Ibrahima Faye loolu nga dëgg la Ibrahima Faye Beuz moom bu nekkoon ba moo dinaa ñëw ndax yaakaar naa ne dafa am lu bëri loo xam ne dama ko xaw jàng ci moom ci côté làmb ndax làmb topp naa ko ci côté yu bëri mais bi ma ñëwee moom dama jàngat ci moom benn facette bu bokk te côté làmb mu ci côté communication moo tax chaque jour rek bu ma woowee rek damay sawar a ñëw ci moom ñu ko doon toog waxtaan rajo la mu sekk jërëjëf alaaji Faramtu magu bës jameke maa ngi lay nuyu bu baax baax di la ziar Lamine Lamine maa ngi lay fay di la ziar bu baax di nuyu mbokk internet yu ñuy suivre ci lutte tv point com yëpp waaye mën a nekk ci àdduna ñu ngi lay ziar bu baax di la jox sa wàccuwaay mm-hmm. di nuyu wow alaaji Fadam Tuub bi ma jàkkaarloo di la nuyu yow lamin ak caméraman yi technicien yi di nuyu sama rakk bës comme ni nga ko waxee. Ah, technicien yi kay caméraman moom waaw di nuyu waaw lu bees non xam nga nag mu ngi commencé tiitaru. Ah. <laughs> wax nga dëgg man di gisuma kenn moom. Ah. <laughs> ay radar rek laa jàkkaarloog. di ko nuyu bu baax comme ni nga ko waxee léegi nangu naa mu nekk sama rakk. ndax nag man nekkuma benn moromu célibataire. <laughs> di war a moromanteeg yow. comme sama rakk maa ngi koy nuyu di nuyu ñëpp waaye man nekk ci àdduna rek xam nga sànq lu ma wax jàpp ne am na jafe ndax bu dee woon tey kenn du ko muuru waaw amul benn problème lu mu wax baax na waaye man daal aw ma jotu nekk di débat ak célibataire moom wax dëgg yàlla yaa ma ne maa ne parrainage di ko nuyu bu baax a baax a baax di nuyu waa parcelle 1 ba di nuyu sama pap père bu baax a baax a baax hmm. di ndokkeel Lamine gàmm gi ñu jógee hmm. ci ndokkeel waa Medina Baye gi ma jógee jabatu Maolana Cheikh Ibrahim yëpp ñu ngi di ko dalay sa xalifa ba suuf di nuyu sama papa sama turandoor Mamadou Mahdi di ndokkeel tamit waa Tiwaawoon ñu ko dalee si xalifa bi sañ bay si Mansour ba si suuf sañ bay si Abdou ñëpp ñu leen di ziar bu baax a baax a baax a baax waaye comme ni nga ko waxee sama xarit sama doomu nday Omar Sow tey la anniversaire am démb la woon. Hmm. waaw ñu ngi koy souhaité joyeux anniversaire. di ko ñaanal yàlla na ko feetee cent cinquante ans si barke Seydina Mohamed. ko sant di sant njabootam yëpp di nuyu. madame Sow Demba Bote maa koy nuyu bu baax a baax a baax. moom tamit Demba Bote. waaw <laughs> ah, maa ngi ko maa nuyu maa koy nuyu bu baax a baax a baax di ko souhaité de borom këram di wax ne nag tey buñ paree sax fii ci émission bi dañ fi daggee euh, gâteau bi incha allahu rabi anniversaire bi tey anniversaire fii dañ koy féetee en tout cas émission beeg plateau yeeg lépp lu fi am jël nañ ko jox ko PDC Omar Sow souhaité ko ci bisam Lamine. bu baax a baax di la ziare bàyyi la nga nuyoo ñu lay seetaan. Lamine maa ngi lay fay di am mbégte lool toog ci plateau bi euh, di am mbégte lool jàkkaarloog mbokki internet yi nga xamante ne ñoom ñoo ñu seetaan sur luttetv.com mbégte bi nag day gën a yokk ndax euh, suñu ay frères yi nga xamante ne moom lañ fi ñoom lañ fi toogal. Jamaïcain xam nga ko sama xulluwaale moom ko xamul noo koy def moom ah da ngay da ngay rek moom dañuy xulloo tey suba ñu juboo hmm. waaye macha allah yàgg nañu lool dëgg yàlla nañ ci début Lutte TV yi mu doon def lu am solo ci ay communication mhm. dëgg yàlla ci ay analyse euh, di ñëw di dëggal boppam di def analyse yoo xamante ni ñu bëri daawuñ ko ñeme def donc macha allah ba tey mu toll fi nga xamante ne toll na fi nekk promoteur ba pare nekk entrepreneur kon dañ koy féliciter ci liggéey bi nga xamante ne mu ngi ci mhm. mais itam jam dafa liggéey bu mu tàmbali woon mais da ko àggaliwul ndax liggéey boobu su ma neexee sax ma ne sañ-sañ a koy àggali te sañ-sañ boobu noonu deux cent pour cent dafa nekk ci Fadam mi toog mm. mooy dafa ñëw ci làmb indi ci benn touche bu particulière waaw mooy ak gëm-gëm te di continue continuer nag di ko def mm. xool lu neex mbër xool lu naqari mbër di jël ay responsabilité ci làmb di wax man tey euh, ci niveau digital Fadam dafa baax rek di wax bës bës bës mais man tey damay jàng ci moom man hmm. personnellement te damay gis liggéey bu muy liggéey ci làmb hmm. te maanaam bu dee jëriñoo làmb itam lu muy jëriñ làmb ëpp fukk junni yoon hmm. et vraiment maa ngi koy wax rek démb ci keroog ci Instagram bi ma ne ko Fadam waroo di gëj di live ndax da ngay dundal tey beneen facette. ci làmb ma nga ci beneen kii. ah daa dem TikTok. ma ne waaw showbiz bi waaw léeg-léeg ma fekk ko place Boucher Ketchup dégg naa mi ngi waaj a génne benn single sax ah ma fekk ko place Boucher Ketchup mu ne ma bës man damay bëgg a toog di lii ci showbiz bi <laughs> mais nag na xam ne nag produit làmb la te tamit nag làmb doo koy soxla te itam da ciy indi touche boo xamante ni kenn mënu koo dindi hmm. ndax li li li li li Diagne il est devenu incontournable mhm. incontournable ne mooy di nga gis ku ko tey ba pare suba ànd ak moom pour mu wax ci ci mbiram mhm. xaw mën a dégg nga fi may waxee kon loolu mooy une personne incontournable mhm. di am mbégte loolu nag ci suñu sponsor leader bi nga xamante ne tey amaana bu Lutte TV mu ne lii yëpp c'est grâce à ce sponsor là muy Meta bi nga xamante ne moom lañ dendal muy produit bi nga xamante ne produit bi vraiment franchement am na bu wàññi poids nag pour am na MetaPower ah. c'est une gamme de nutrition et une gamme de boissons énergétiques mooy mhm. dafa am côté boisson énergie mooy boisson MetaPower mhm. incha allahu rabbi léegi ñu mu nekk sur le marché loolu moom bu yegsee Fadam da cee war a am ay kees mhm. saa yu war dem làmb ja wala saa muy naan boobu dina remplacer jinjeer bu muy naan mais lii la gamme de nutrition non vraiment Fadam incha allahu rabbi bii soo bëggee perte poids soo bëggee jël poids bu sell. Mhm. soo bëggee am une meilleure santé soo bëggee am énergie. Mhm. lépp am na ay produits yoo xamante ne c'est dans la gamme Meta Power. Mhm. surtout Eric Nation point com di ko commercialiser. ku fa dugg rek wax dëgg yàlla Eric Favre tiret Nation point sn wala point com wax dëgg yàlla di nga am une toute une gamme de produits c'est normal ñu koy tudd parce que mooy le sponsor leader. bi jàpp tey. ci combat bi ba ñu agsi fu ñu mën a àgg Lamine. macha allah loolu am na solo Jamaïcain li foog mu invité borom xam-xam koo xamante ni jàng na ko. xam ko jam amul xam-xam wax ci baax a baax parce que damay gis sénégalais parfois da ngay gis kuy mm-hmm. commentaire. Mm-hmm. moytu leen protéine. waaw ñàkk xam léegi nag dana am ñoo xamante ne da nga leen dégg ci seen wax ñu ni kuy mm-hmm. entraîner. wala kuy def yenn activités yi sax waroo mën a ñàkk a jël nga xamante ne moom mooy protéine. bi nag bës pour masse la. complément bi nga yokk masse jox la énergie bu doy endurance ak force. macha allah ñoom di baax na waaw macha allah comme bés moom firi na affaire yi ndax moom moo xam ko am xam ko amul xam-xam jàpp na ne amul xam-xam maa ngi koy nangul ku nekk daal sax xam-xam yow lay jëriñ. Ah. sànq rek li mu wax wax dëgg yàlla dama ko ci remercier ndax nee na jamaïcain li mu commencé woon moom la Fadam yeggali loolu damay sant yàlla ndax Fadam mii tey mu ngi nii toog xam nga làmb nag eh. lu sotti rek am borom Fadam maa ko fekk Lac mu weex tàll ne si suuf si. non mu ngi ni toog du ko weddi. non ñoo àndoon Lac ñoo àndoon Lac ñu fekk ko see Salim guddi lu mu guddi guddi fa dama ngi weex tàll. ma ne ko ma ne mu wax ba pare ma ne ko sën bi man dafa am lu may def ci làmb comprendre nga te yow mii ruq bii nga nekk boo fi génnee ni ma la déggee ngay wax nii mun nga yegg fu kawee ci làmb mun nga ci def lu ko lu tax dooy génn di fësal sa bopp. mu ne non xam nga rek xam nga boobu xam na caméra yi gën na leen gis comprendre ma ko noo boo génnee gars yi jël la interview analyse yi ma doon def nii mu nga continuer di ko def mu ngi nii toog tey kon bu ñëwee continuer lenge yi ba yegg si fii mu yegg ba yegg si fii mu ah ba sa ko wax ta li mu wax ne xam nga Lamine mu ngi nii toog barke alxuraanu karim ah, mais yow yow bi waaw waaw ba ma pare rek waaw ba ma pare interview bi may def inter defee interview boobu noonu man maa recadré ci lu bëri ni defal ndànk rek ba ma pare ci xam nga non mooy du ma am sama invité nga bëgg a attaqué sama invité attaqué wu ma de non non yow yaay moom moo jàpp ne attaque la xam nga li mu wax dama ci feer ndax barke alxuraan ko moo ci indi ay mu ngi toog lëndëm waaw non non dama ne foofu dafa lëndëmoon waaye Fadam mu ngi wax Fadam xam na li may wax boobu Fadam xaw ma si ciment la doon liggéey xaw ma demee mu ngi a ngi ni mooy sama témoin ma ne ko Fadam di wax ci làmb kon tey Fadam su waxee ci làmb tey bañ toog man ak moom ñu bokk plateau nga ne ma li nga tàmbali woon Fadam moom moo ko yeggali kon Fadam du choix des peuples man maa ko choisir man maa génnee Fadam fa mu nekkoon kaay génn wax ak askan ah, waaw non man maa ko fa mu nekk même bu fekkee choix des peuples la fa mu toogoon gars yi fekkuñ ko fa gisuñ ko woon maa ko fa fekk mu toog ma ne ko Fadam génnal nga ñëw di wax ci làmb mu ngi nii toog maa ngi toog su ma ko waxoon ci ginnaawam mun na nekk loo xam ne wax du teguwul la wala waxu jëw la wala waxul leneen la mu ngi nii barki Seydina Mohamed yow nag jamono bi nga may jël may ñuul tamit yaa ngi ñëw di sol costume yoo xam ne man trois morceaux laa ko doon jaawaleeg kon adduna mooy développé. ah mais nañ ñu wax ci làmb te bàyyi vraiment. ah non non li nga wax rek laa lay tontu. yow mën nga ñuy wan ah, image. tey sax dama am envie tey dama am envie wax ci nga gis photo bu xam nga jamee kay il faut ngeen comprendre. am na yu ma ci yoroon. xam nga jamee ko ndax dof bi bi biñ ko mayee jabar ci nawet bala bu wàccee mu xëy lay dafa yaakaar ne daa taw. dof bi bi nga ko mayee jabar peut nawet. mu nekk ak jabar ji ba nawet bi jeex mu xëy nekk peut-être xaal mu xëy lay boobu lay dëkk bi yëpp lay. mu ne taw na kon xel ma am na fu jëm. lii lépp émotion jabar ji rek la. déedéet non non laaj ko ci li may wax am ñoo àndoon su fekkee lu am la su amul. naa naa dañoo war a waxtaan ci làmb tey te yaakaar naa ne Sénégalais ak ngi xaar.